gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw ak fu mënti jóge ak ci fu mënti bokk ak tiitur bu mënti yor ñu ngi nuyu ñépp di leen wàccee seen wàccuwaay fii ci daaray Koki mu mel ni duñu dañuy tënk rekk benn présentation bu gàtt ci lu aju ci daaray kokki bu ñuy wax daaray kokki daaray kokki mu ngi sosu ci 1939 ki ko sos mooy sëriñ ahmadu saxiir loo mi ngi ko sos ci ndigalal kilifaam turandoom euh, maam cheikh mbay nekkoon way jur ci alaaji jiili mbay ak sëriñ sam mbay moo ko fi yebal guddi gàmmu 1939 ni ko demal kokki ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla Cheikh Ahmad Saxiir bi muy ñëw kokki benn taalibe la àndaloon ku ñuy wax Baraama Géy goo xamante ni ab jigéen a ma ko jur bim ñëwee def fi ab diir bu gàtt sëriñ mbaarik anta bàcc yabal fi njabootam ñu toog ab diir bu gàtt maam Cheikh Mbay mi ko fi yabal yabal fi alaaji jili ak sañ saam niki noonu waa dëkk bi commencé di indi seenu njaboot daara ji di màgg ci tënk mën naa wax ni daara ji ci benn donga la tàmbalee woon fii may wax ak yéen ci dernier recensement yi nga xamante ni am nañ ko daara ji mu ngi toll ci 3742 muy ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar yoo xamante ni ñi ko composé mooy askani réew mi ak goxi réew mi maanaam fu gox ci réew mi mu ngi ci daara ji waaye tamit askan yëpp yi nekk ci réew mi ñu ngi ci daara ji waaye confrérie yëpp ñu ngi ci daara ji waaye kuréel yëpp tamit ñu ngi ci daara ji mu boo génnee réew mi réew yi wër réew mi lu mel ni Gàmbi lu lu toll ci ñatt téeméer ak lu teg ñu ngi ci daara ji fu mel ni Guinée Bissau am nañ fi fu mel ni Guinée yi am nañ fi Mauritanie am nañ fi Burkina Faso am nañ fi am nañ fi sax ba am benn nationalité américain daara ji nag li ko tax a jóg mooy ci cosaan mooy jàngale alquran lu fi leneen lu fi waaye amee bénéfice la waaye sëriñ ahmad saxiir maam cheikh mbay dañu ko woon demal kokki ku nga ñëw nga jàngal ko ngir yàlla alquran kon leneen lu fi waay jële rek bénéfice la waaye base bi mooy jàngale alquran moo tax xale bi bi nga xamante ni moo fiy ñëw bu fi ñëwee li ñuy jéem a njëkk a def ci moom mooy jàngal ko alquran ba mu wattu ko bu ko wattoo nag am na yeneen programme yu fi am yoo xamante ni bu xale bi ay way juram nangoo wala moom mu nangul boppam nangoo continuer ci yooyu lay tënku loolu nag alquran ji bu ñëwee mu ngi koy jàng ci ñeenti at ñeenti at yooyu mu ngi aju ci xelam rek mën na kaa ëpp mën na kaa yées euh, ñi ëpp daal ci ñeenti at la ñuy mokkal boo mokkalee alquran ba noppi ci ngay commencé nag njàngum xam-xam njàngum xam-xam ñaari vole la mooy njàngum moderne di njàngum école ak njàngum cosaan mi nga xamante ni moom la mag ñi daan jànge nga xamante ni da ngay toog ñu lay tëral téere yi mag ñi daan jàng ci langue bi nga xamante ni moom nga dégg boo demee ci école bi nga xamante ni mooy enseignement général bi au lieu que ngay def juróom-benni at ci primaire ñeenti at nga koy def boo te ñeenti at yi sax gis nañ ni bari na ci ku mokkal alquran ba ñu ngi def ay gëstu xool nuñ ko defee ñetti at wala ñaari at boo demee ci cycle moyen bi étape cinquième sixième au lieu que ngay def sixième def cinquième benn étape la boo paree directement quatrième ngay dem def troisième boo demee troisième dem euh, seconde dem première dem terminal lépp lu ñuy jàng nag ci réew mi dañ ko fiy jàng langue yi nga xamante ni mooy langue yi gën a fés ci àdduna wala ci suñu sous-région bi dañ ko fiy jàng muy arab muy anglais muy français programme bi muy jàng mooy programme école publique booleek arabe bi nga xamante ni suñu programme bu ñu tëral la ak programme mu njàngum diine mi xale bi su xëyee suba fii ci daaray kokki lu muy def maanaam nan lañ tëralee programme bi bu xëyee huit day jàng ba midi noppalu ba quinze heures quinze day jàng ba dix-huit bu ko daggee daa daa dem julli ji tàkkusaan bu guddi jotee ñenn ñi nga xamante ni xaw nañoo sori gannaaw gee danañ jàng waxtu buñ demee ba 4 heures matin dañuy yeewu ba julli fajar ba bu julli dañuy yeewu di jàng ba julli fajar loolu la xale bi di xëyee tàmbalee ko ci vendredi soir ba mercredi matin ah, du yemul ci jàng mi kese waaye danañ ko tàggat ci yenn liggéey yu ndaw ndawaan yi nga xamante ni mënta ñàkk ngir waajal ko ëllëg ba bu fi jógee bañ a nekk ku yaafuus ba mën a nekk koo xamante ni acteur de développement lay doon ci fànn yi nga xamante ni moom la développement composé yëpp ah, xale bi bu fiy ñëw il faut mu am juróom-ñaari at lum néew néew waaye bu weesoo fukki at ak ñett xale bi jël ko ci daara ji mu ngi dependre ci volonté bu bëggee waaye su bëggul a toog ñun duñ téye kenn buñ bëgg bu bëggut a toog moom bu ne bëggul a toog duñu tëye kenn ndax daara ji du fu ñuy téye nit naan ko force da ngay toog déedéet mu ngi dépendre ci xale bi buy ñëw il faut mu ànd ak ay way juram gannaaw ba mu ba ay way juram amee accord ñi nga xamante ni ñoo yor daara ji bu ñëwee tamit il faut mu tënku ci sarti daara ji bu tënkuwul ci charte daara ji leneen mën na ko ca fekk waaye nag ñuy bàyyiloo xel mbokki jullit yi di leen xamal ni daaray kokki li ko tax a jug mooy yar li ko tax a jug mooy teg nit ñi ci yoon ba bu ëllëgee buñ fi jógee amal njariñ seeni bopp amal njariñ seeni mbokk amal njariñ seenum réew waaye du ko sa doom të nga ni dama koy yóbbu daaray kokki daaray kokki du bukur déedéet daaray kokki ñi nga xamante ni maanaam dañoo nekk ci ak ndaw ñu war leen a toqi ñooñu la gën a soxla pour man leen a waajal ngir ëllëg waaye boo demee ba sa doom jaaxal la nga nga ni naa ko yóbbu kokki déedéet loolu na ko ñëpp na ko way jur yëpp xam daaray kokki du ku du ku të du nekkul pour ku të nekkul ku ko ku jaaxal ay mbokkam déedéet ah way jur wi tamit bu ñu demee ba nangul ko li nga xamante ni moom la daara ji sartante ci mu indil ko xale bi il faut mu indil ko ba noppi nag dafa am waxtu te dafa am nombre dafa am waxtu dafa am nombre waxtu wi mooy premier janvier la ñuy jël bu ñu demee ba décembre dañuy recenser li nekk ci daara ji buñ ko recenser nombre de place vides yi fi nekk ci base boobu ci la ñuy jëlee moo tax mën nañoo ubbi benn waxtu rek nombre bi ñu soxla woon ñu am ko waaye bu ñu ko amee nag ñi nga xamante ni yàlla bëgg ñu defar moo tax bu boobaa nañu am compréhensif ci loolu ndax say Ahmad Saxiir Lo daf daan wax ni ay jëmmi jamono daf daan wax ni su fekkente ni dañ laa jox soow soow mi nga nga ciy yokk ndox rek di ci yokk ndox di yokk ndox te bàyyiwoo bu yàggee dootoo am soow dootoo am ndox te ñun dañoo viser pour qualité qualité nag dafa am condition yoo xamante ni moom la war a àndal mooy ñi fiy nekk war nañoo nekk ci ay conditions yoo xamante ni mooy tax ñu jàng ci anam goo xamante ni anam gu jaar yoon la euh, buñ ñëwee ci daara ji lan mooy ay feetam daara ji am na ñaari feet mooy feetu korite ak feetu tabaski amul vacances daara ji amul vacances scolaires lim am mooy feetu korite ak feetu tabaski loolu nag li ko waral mooy ñiy jàng ci école bi ñoom ñooy jàngale alquran boo mokkalee ba ñu attesté la nga dem ci école ba di jàng da ngay jàng nekk ab nekk ab élève ca école ba mais en même temps nga nekkaale ab sëriñ daara ci biir daara ji moo tax ñooñu liñ mën a am ci feet mooy gannaaw tabaski danañ am fukki fan ak juróom cinq jours avant tabaski di ñaan nag way jur yi ndax loolu dañ cee am ay jafeñ-jafeñ yu metti mooy ni lan mooy ni xal tënku tënku ci délai yi nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy joxe ñu ngi ciy jànkonteel ay jafeñ-jafeñ te loolu day dafa amaat influence ci njàng mi nga xamante ni ñiy jàng alquran ñoo ngi koy jàng te jàngum alquran mi mooy baas bi ñiy jàngale dañuy dem tabaski ji xale yi nga xamante ni dañuy seeni way jur bëgg nañ ñu tabaski ji dañuy dem tabaski ji waaye nag nañuy sàmmonteeg waxtu wi nga xamante ni moom la tër te bu jotee ñu ñëw am na ñoo xamante ni seenu njaboot dañ fiy nekk di jàng alquran juróom-ñeenti weer bu école tëjee ñu ni dañoo bëgg suñu njaboot ñëw fekk si ñu dimbale ñu ah daara ji nag doxewul noonu maanaam dangay ngay dangay jàngale di jàng ñuy jàng da jàngale di jàng da ngay jàng ci école bi ñu lay taxawu ci anam goo xamante ni doo fay dara droit d'inscription sax doo ko fay charte bi nag mooy nag nga fay bor fay bor bi mooy lan xale yi nga xamante ni moom la ñu yëkkati teg ko ci sa loxo nga leen teg ci yoon di leen jaarale ci yoon loolu nañ ci way jur yi dimbale amuñu vacances am na ñoo xamante ni bu vacances jotee ñu dem bu vacances jot jeexee ñu ñëw te seeni way jur duñ ñu avertir duñ ñu wax te loolu dafa am indi ak sooxe gu rëy rëy ci euh, ci liggéey bi daara ji ñi fi nekk duñu fay service yi fi nekk yëpp gratuite la xale bi day jàng du fay day tëdd du fay day lekk du fay day faju du fay li nga xamante ni moo fi nekk sax ci lu luñ ko mën a dimbalee ba mu nekk ci ay conditions yu baax sax li ci daara ji man lépp da koy def kon résultat loolu liggéey bi nag am na ay résultats yu muy jur résultats yi ñu moom la ñuy jeexale mooy ni mën nañoo wax ni at mu jot lu toll ci ñatt téeméeri nit ak ñaar fukk ak lu teg danañ fi wattoo alquran ci dernier recensement yi nga xamante ni ñu ngi koy am euh, bu dee ci njàngum école mi bu dee primaire ci ren ci 2019 ci CFA daara ji am na ci ay résultats 74 virgule 69 pour cent maanaam téeméer bu nekk am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñeent ak lu teg bu dee ci examen euh, BFM franco arabe daara ji am nañ résultat résultat am nañ ci 100 pour cent de réussite bu dee BFM français kese tamit daara ji am na ci réussite de 100 pour cent bu dee baccalauréat bi tamit daara ji am na ci résultat de 74 virgule 14 pour cent kon ci tënk lii mooy présentation bi nga xamante ni moom lañ leen bëggoon a jàllale ci lu jëm ci daara ji ci ñenn ñi nga xamante ni bëgg nañu ay information yoo xamante ni dañ koy yóbbaale ah am na lu ñu waxoon daaw fii dañ ne woon xale yi yi fi nekk seeni téere day ràpp jamono bu nekk dañuy soxla ñu koy ñu seeni wayjur yi di ko yeesal waaye bañ ko waxee am na mbokk mu baax bu ñuy wax soxna daba jiili nee na moom bañ ko waxee daaw la ko note woon looloo tax ren démb mu yónnee ñu 1000 kaamil yoroon nañ ci ay téere xat samial ak yaasin ak xat ak amma lu ëpp 3000 nga xamante ni mille nangam ci ay téere yoo xamante ni xale yi war nañ kaa jàngale jànge andi na ko fi ñu ngi ko ci sant di ko gërëm di ñaan yàlla mu defal ko fayuk alaaxira defal ko fayuk àjjana wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.